alla aaduma live bi fii lay amee kan ko léegi léegi léegi nii ngeen partage ko ñëpp jot ngeen abonné fii lay amee compte bi bi di 7TV euh, ñu agressé ko jam ko paaka ba jamono ji mu ngi urgence mm. euh, loolu noo ko jàngatee ci langu politique gi ndax ci gannaaw ab émission la ko amee waaw d'abord loolu du ma ci sori parce que nekkul jëtte émission bi parce que jëmm jooju nga tudd yàgg na ñoo chargé yàgg na wax si ñun lu bon du tey ñu wax ko yàgg n wax si ñun ay tiis ay fen te lépp it euh, li ko lal mun nga mun nga peut-être bàyyi bàyyi yenn wax yi peut-être à l'antenne non may ma rek parce salaamaaleykum gars yi salaamaaleykum gars yi maa ngi nii di doog a yeewu nii nii moo tax may waxee nii may mun na nduur mi ngi urgence Maimouna Ndour mi ngi urgence Maimouna Ndour mi ngi urgence da doon def émission ak Farba Ngom démb ci guddi waa Pastef yi ñëw ko daat koy jam paaka vidéo yi rus naa ko wane deret ji di sotteeku fii ci biir bi fàmb yi di tuuru may mun na nduur mi ngi urgence ci diggante dund ak dee waa Pastef yi dem ca émission ba jam euh, may mun na nduur loolu lépp dañ ko def ngir iñaanee Farba parce que ñoom Farba Ngom moo tiital Farba Ngom moom lañ gën a ragal yàlla Farba Ngom xanaa xamu leen ne moom mooy président Macky Sall moom mooy euh, Farba Ngom yàlla na président sax le deux avril mu dàq ñëpp woo Farba ngoom ne ko doonal président doon ma ci réew mi parce que Farba capacité am àgg na foofu Farba beneen dimension la président da koo bëgg mu bëgg président may Maimouna nduur yàgg naa def émission kenn mësu koo jam tey lan ko mas a jam parce que Farba ngoom moo tiital waa Pastef yi Farba ngoom moo sonal waa Pastef yi waa Pastef yi boo leen laajoon kenn moo leen gën a sonal kun gën a ragal ci àdduna bi dan naan la un honorable député Farba na Ndour nag jam nañ ko mu ngi urgence doomu xaraam di nekk Pastef ba nu ko laajee dégg ngeen wax ju ñaaw ji mu wax nit ku nu jam deret ji di sotti mu am lu ko metti nga am ñu laaj la lan nan nga ko jàngate ngay wax sa waxu dof yi waa Pastef yi danoo toj seen cott ndey danoo lekk seen data yaay Farba Ngom ku ko laal laal ma ku ko laal ma toj sa cott ndey ba Ngom Sénégal ba Sénégal jeex ku ko xool xool bu la neexul ma lekk sa data yaay mooy président Macky Sall président Macky Sall mooy far ba Ngom Maimouna Ndour yàlla na ko yàlla yëkkati si jàmm mu continuer liggéeyam continuer émission ñi ay assassin lan raykatu nit mun na Ndour mi ngi nii ñu jam ko mi ngi urgence Farba Ngom amal jàmm te wér émission lan la invité mu mel ne président de la république la invité gars yi def délégation foofu fees dell merci beaucoup honorable député Farba Ngom yaay ndaanaan